waaw ñun dañu entraîné bu ñu amee combat bu ñu amul combat li des mooy ci promoteur la des Tapha Tine pare na pour ñëpp waaye. promoteur que am na adversaire yu ñu la ko proposé noo ñu ngi waxtaan mu ngi sori franchement du ma la nëb yal na yàlla def mu soteeg jàmm te gars yi bañ a daw combat bu ñu ko dawul bientôt dinañu dégg combat Tapha Tine dans une semaine incha allah. gars yi bañ a daw combat ku fi dëkk. am na fu ngeen jaaroon muy bombardier sa diggante ak moom gars yi bëgg nañu mu gën a leer. waaw mais xam nga koo daan ba pare man du ma nekk di wax ci moom day niru leneen moom moo soxla revanche am na taf na ne dama soxla tafaatin may ma suma revanche comme man ni ma laaj Balla suma revanche loolu moo am ortas mais du leneen bañu ma bëre ak moom bañu ma bëre ak keneen ak keneen ku pare rek tafaatin pare na pour bëre ak yow. yaa tudd revanche contre Balla boobu dafa mel ni moo la gën a saf. bu ma ko amee moo ma gënal tout le temps loolu laay pare naa pour lool bu ma ko may moom a gënal fukki junne yooyu Bombardier est-ce que am na ñu la ko proposé. non mais ñu ma may wax ñu ngi may wax ñoom ñii ci kaw ñëpp mais actuellement xëy na bu ñu dawul en tout cas da ngeen dégg combat Tapha bu yàggul dara parce que bëgguma ci xuus quoi yaa. Gris Bordeaux bëreegul amagul combat amagoo combat te boobu combat jàng ñoom ñëpp a ngi ci lim bi waa ji ñi mu wax ñoo ñëpp ci lim bi lañ bokk. li l'essentiel mooy bu ñu daw combat bi bu ñu ko dawul di ngeen dégg combat Tapha Tine incha allah.